ak tuuti diwlin ak tuuti euh, laaj ah rajouté si suñu persil donc club sandwich ak euh, mayonnaise bu ñu jaxase ak thon. waaw. def ci tuuti nen. Mhm. daal di teg nii jël sama fiolan. waaw. déjà cure-dents yi dina rafetal mais aussi tamit dina téye pain bi. waa lii pour mu téye pain bi la. d'accord waaw après nga doog a jël sa olive nga piqué. donc dañuy delluwaat rek en tout cas ci wàllu. Euh, nit ñi. d'accord dama lay bàyyi nga defaraat yeneen. waa damay defar yeneen je suis dañuy delluwaat rek ci wàllu décoration même lu ñuy wax lekk bi dina neex mais déco bi aussi dafa am solo. dafa am solo nit ki boo koy jox euh, lekk da ko war a présenter nu mu gën a rafetee rek noonu lay gën a liggéey te présentation bi da cee am solo tamit euh, set gi tam wàllu set gi da cee am solo nga respecter kii euh, règlement de la cuisine bi. lu ñuy wax booy togg lekk tam danga war a concentrer aussi lekk bi ngay togg parce que. mun nga juum nga def erreur xam nga personne n'est parfait mm-hmm. boo toogee te defloo sa xel ci li ngay togg mun nga li nga warul woon def nga def ko ci wala loo xamante ne waru ci woon dugg daal nga dugal ko ci. mais man tey dama bëggoon xam euh, cuisine bu ñu waree defar par exemple benn gâteau wala benn euh, club sandwich bu ni mel. mu am lu mm-hmm. luñ ci fàtte. est-ce que loolu danañ koy servir wala dañ naan boo lii dañ ko mettre de côté après ñu seet leneen luñ koy def. dañ koy def de côté duñ ko servir que ñun li wax tout ñun satisfaction client bi. Mhm. moom la ñuy wut. d'accord tout le temps même su fekkente ne li ngeen def arrangé wu leen mais tout le temps dañuy xool côté bi nga xam ne le client sera satisfait. d'accord parce que le client est roi. aussi waaw parce que bu ñëwee di fay sa xaalis. waaw nga lekk lu neex. neex nga lekk euh, loo xamante ne daal dina baax ci yow. Mhm. loolu yëpp daal ci la. bu dee ay gâteau yi nii tamit mhm. boo koy def du n'importe quelle farine nga war a mën a utiliser pour def ko mhm. da ngay jël ay farine yoo xamante ne dafa am ay critères aussi yoo xamante ne mhm. moom nga war a suivre noo jël farine bu ñu peese rek nga ne da ngay defar sa gâteau non dafa am euh, euh, farine yi nga xam ne da nga koy utiliser. voilà pour nga mën a am gâteau bu rafet. farine de type 45 ngay utiliser. <laughs> parce que ñun moom bu dee ñun boutique ba la ñuy dem rek jënd suñu farine rek ñëw utiliser. mais nag depuis sànq ba tey da ngay wax euh, wala depuis début émission bi da ngay wax ci wàllu set ba bëggoon xam en cuisine bu ngeen dugg see balaa ngeen di def TP. ah ñaata yoon ngeen war a raxasu wala bu ngeen duggee génn da ngeen war a raxasu wala forcément da ngeen di am ay gants souvent. dañuy am ay gants en même temps dañuy am ay produits yu ñuy raxasoo tamit. dangay bala ngay def dara dangay raxas say loxo ak sa produit ak produit ba mu set boo raxasee sa loxo ak produit ba mu set bu dee garde manger nga jëm nga sol sa gant en même temps mhm. fekkente ne au chaud nga jëm nga liiwaat tamit jël essuie-tout sa loxo yi ba mu set nga doog a dugg cuisine comme ni ma koy waxee rek li nga xamante ne day dugg si biiru nit dañ fee war a ko war a jox ak mhm. waaw lekk waroo ko toggee nu la neexee waroo ko toppatoo nu la neexee daal dafa am ak donc parce que li nga xamante ne moom lay moo lay teral mhm. nga lekk day teral yi nga nit bu xiif mënul def dara li nga xamante ne moom moom ngay lii boo xiifee moom ngay lekk boo balaa nga koy lii. d'accord balaa nga koy togg da ko war a jox ak xam. d'accord waaw dama xaw a sob nag dama gis fële lu def forme étoile ak euh, li nga xamante ne dafa def mel nii kubéeru euh, butéel xaw ma nu mu fa demee noonu comment ça s'appelle ak lan la. lii emporte-pièce la. bu la neexee nga defar sa club sandwich. Mhm. utiliser emporte-pièce bi. pour dagg ko mën nga ci am ay forme étoile mën nga ci am ay rond mën nga ci am yeneen forme tamit ay lune wala yeneen voilà forme de cœur mhm. yëpp mën nga ko ci am am na sax échantillon bu ma defar pour wan la ko d'accord waaw <laughs> xaaral ma jël ko donc en tout cas lii moom rafet na ci bët gis nga waaw donc yii moom la ñu defar ak en porte-pièce voilà moom laa utiliser en porte-pièce bi mhm. comme pain de mie bi mu ngi nii. da ngay daal di jël emporte pièce bi rek nga place ko ci digg bi. d'accord mu ngi nii. ok mu topp la gis nga. mu ngi noonu. léegi bu dee bii tamit. étoile bi. étoile bi da nga koy daal di placer rek. kay yomb na. mu génneel la forme étoile. mu génneel la forme étoile. donc emporte-pièce duñ koy utiliser juste ci entrée yi pour jox ko forme bu bañ a déborde ci plate bi. voilà nañ koy utiliser aussi pour couper ci yenn pain yi ak jox yenn forme yi. waaw mun nga utiliser tamit ci dessert yi. surtout ah. ci dessert yi lañ koy gën a utiliser. waa waaw ay entrée chaud boo amee ay cocktail mun nga defar yi wala nga am sa invitation nga defar hmm. yi jox ko sagan fàttali ñu rek lan nga utiliser pour defar amis boucher. waaw li ma utiliser ba léegi mooy saucisson bi. Mhm. moom laa utiliser thon olive noire ak vert nen laitue. Mhm. pain de pain d'épices pain de mie du ak beneen saucisson pou euh, décorer. décoration bi voilà lii. persil la tudd boo defaree ba pare nag persil haché. waaw da nga si daal di gën a jox forme. En tout cas, c'est très joli. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Merci ouais. beaucoup euh, Ndella ci euh, club sandwich bi nga xamante ne tu l'as réalisé aujourd'hui à base de pain de mie euh, saucisson euh, ak mayonnaise nen bu ñu baxal laitue alors le tout ñu agrémenté ko ak olive noire olive vert tout ça pour faire joli c'est très simple cure-dent yaakaar naa yomb na pain de mie yomb na yeneen yëpp yomb na donc mën nga defar sa amuse-bouche mooy maanaam li nga xamante ne moom ngay jox sa invité balaa muy dugg ci plat de résistance bi c'est fou hein man maa ngi jàng bu baax. waaw ah, may fàttali yéen man maa ngi jàng. <laughs> may fàttali nit ñi toujours. nañu uh-huh. faral di respecter chaîne de froid bi tamit. loolu lu am importance surtout ci tàngoor bi ñu nekk. boo dul respecter chaîne de froid bi choléra bi dafa bëri yeneen feebar yu sew sewaan yi. Uh-huh. yooyu yëpp wàllu lekk bi la. lekk dañ ko war a jox ak xam xool fi ñuy teg lekk bi xool ni ñu koy conserver xool yëpp gën a teg yëpp si yoon daal. comme waaw d'accord merci beaucoup Ndella on se retrouve euh, demain incha allah donc euh, duñu.